teewaay bi ni ñu koy defee ay bës bu nekk ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci seen beneeni numéro ci seen émission bi ñu duppee jotaayu immigré fii ci plateau bi seen mbokk El Hadj Malick ñu fas yéene tey waxtaane lu yaatu lu jëm ci wàllu immigration xam ngeen bu ngeen ko fàttalikoo ne woon nañ ci bi ñuy ndortalu programme bi biñ koy tàmbali Li nga xam mom lañ duppee les phénomènes globaux dañ ci waxtaan lu yaatu te bokk na ci immigration ndax mbir la mo xam ne lëmbee na bi kon tay immigration fi ci biir réew mi wala ci way ci réewu France euh, Lata booba nañu def lu ñuy roundup round up actualité li gëna fess ci xibaar yi fi ci réewu Amérique li ñu seetlu ci ay bëss bi ñu moy euh ñi nga xam ni ñoy républicains yi parti républicain te contrôlé li ñuy tuddee la chambre des représentants house bi dañoo formaliser mbir moo xam ne nii moom la ñuy tuddee impeachment mooy lancé nañu ab l'enquête boo xam ne liñ ci jublu mooy tekki ndombo président Biden. président Biden dafa am doom ju góor ju ñuy wax Hunter Biden dañu ko tudd ci ay luubal bokk na ci ñàkk fay taxe loolu am na inculpation boo xam ne nii indictment boo xam ne ñu ngi ko ciy topp foofu ci état wu California. leneen lii am na beneen inculpation beneen indictment boo xam ne dal na ci ko am foofu ci état wu Delaware mais boobu ci mbirum li ñu tuddee gun charges mooy fetel yoo xam ne jëndoon na ko te yoon may woo ko woon jamonoom bu jënd fetel ndax da doon jëfandikoo ay xeeti sinébar yoo xam ne ni amutoon autorisation kon jënd fetel yooyu loolu nag bi ko euh, euh, bi ko tribunal bi euh, fédéral court bi toppee ci loolu ñoom républicains yi jàpp nañ ne moom Hunter Biden business yi nga xam ne daan na ko def ak yenn réew yi yaa xam Ukraine la wala Chine la parti républicain bi surtout ñi nga xam ne ñooy congressmen yi nekk ci house bi jàpp nañ ne euh, mel na ni loxo papaam Joe Biden génnu ci en tout cas lancé nañu ab l'enquête boo xam ne jaarale ko ci ñaari commission yi nga xam ne ñoo nekk ci house bi mooy li ñuy tuddee oversight moy commission bi nga xamné moy am li ñuy tuddee droit de regard moy contrôler lépp lu jëm ci action gouvernement bi ak commission bi nga xamné mom moom la ñuy judiciaire committee moy la commission des lois de la chambre lolu kon dañu koy euh, euh, euh, tank ci nonu rek waye xamné ne mbir mu sérieux la ndax ñu ngi jëm ci élection présidentielle ci 2024 bi waye bo laajee ñi bok ci parti démocrate bi li ñu lay wax moy du dara lu dul tapale, bo boo mom la parti républicain bi def ndax amul benn preuve benn évidence bo xam ni nii na Joe Biden jëm ci ay activités domam donc loolu luñu mata mat xel la euh, danañu continuer di suivre ndax commission yoyu danañu am luñuy tuddé grade de subpoena power mooy am nañu euh, pouvoir def ay mise en demeure bu ko defé kayit buñu soxla ci courel gu mënta nek ci gouvernement bi wala fenen ku ñu bëgg a déglu it bu boobaa am nañu pouvoir def mbir yooyu leneen li nga xam ne nii euh, ci ay bés bi nii euh, mu ngi lëmbe àddina bi ba léegi bokk na ci euh, mbirum Israël ak Gaza ba fii ñuy wax ak yéen tey génocide bi nga xam ne nii Israël a ngi koy def ci kaw palestinien ya nekk Gaza yéenekaay yu bëri ci àddina bi ak yenn kuréel yi jàpp nañ ne ëpp na fum mu ne ñaar fukki junne vingt mille personnes yoo xam ne faatu nañu nee nañ sax ëpp na ko ndax building yi nga xam ne maasale nañ ko raatale dëkk ba ci suufu building yooyu ay néewi ak i néewi néewu ñëw ñoo fa nekk ay nit ñu bëree nga fa yoo xam ne nii kenn mënul xayma ñaata lañu lii am nag mu ngi am ci ndimbalu Amérique ndax Amérique ñoo joxe ngànnaay yi.

jox ko Israël moom lay jëfandikoo ngir euh, boom ñooñu nga xam ne nii mooy palestiniens yi. Euh, fii ci mbootaayu xeet gi ci semaine bii ñu weesu euh, am na résolution boo xam ne dugaloon nañ ko ci conseil de sécurité des nations unies fukki réew ak juróom a fa nekk juróom yi c'est des membres permanents Amérique bokk na ci la Chine la France la Russie ak la Grande-Bretagne naka la fukki réew ak ñeent yi voté ngir ñu dakkal xeex bi ngir ñu dakkal rey gi la Grande-Bretagne s'est abstenue ñu def abstention Amérique moo bloqué résolution bi ñu voté contre fii ñu toog nii tey am na ci beneen mbir boo xam ne ñu koy résolution boobu Amérique moo ngay continuer voter guñ ko nam waye ba léegi ña fekkee waxtaan wi ci yéenekaay yi bëri nañu Amérique ngay opposé wu lepp luy nirool xex bi jeex waaw lolu euh, ñu xamé ko noonu ndax président bi fi tok tay ñi fi mos jaar ñep mo ëpp lu mu jappalé Israël naka jekk Joe Biden ñu bari xam nañ ne bi mi nekk ci Sénat bi nekk sénateur nekk xalé jiite fa kuréel yu mag ci biir carrière am def na 40 ans ci Sénat bi jiite na fa la commission des affaires étrangères moy foreign affairs jiite na tam li ñuy tuddé judiciary committee moy la commission des lois donc nonu la mos taxawé ci lépp lu jëm ci dimbalé Israël xéxal leen lolo waral ni mu taxawé ci yëf yi bettul ñu bari wayé ci tënk rek ñu xam ne. réew mi sondage yi fi génn majorité bi ci biir réew mi daanaka juróom-ñaar ci fukk yoo jël wala juróom-ñaar fukk rafetlu wuñ ni mu taxawee eh, nii nga xam ne noonu la taxawee ci mbirum Israël bi ni bëri na nag ñu ñu interroger li ëpp ci ñi ñu laaj juróom fukk ak nangam ci téeméer bu ne nee nañu du ñu ko votel ci élection yi di ñëw. am na ñu ne sax Donald Trump la ñuy votel ñenn ñi ne ñu toog duñ ko votel mel na ni bu loolu soppeekuwul. ah boo deful dank dana nek li ñuy tuddee président en seul mandat mandat bi kessé ci lay yem. donc li bokk na ci la nga xamné ni mo gëna fess ci li ñu seetlu ci politique bi biir réew mi mais li gëna soxal réew mi bokk na ci walu immigration. immigration ci ay bi wessu euh Donald euh, qui euh, di Donald Trump def na déclaration bu doy war dana ci dellu ci léegi. waaye Joe Biden wax naa léegi quatorze milliards ya nga xam ne mu ngi ko doon laaj euh, cent neuf milliards la d'ailleurs ci biir cent neuf milliards yi am na ci quatorze yoo xam ne nii pour dimbalee ko réewu Israël xaalis boobu mu doon laajte congrès bi daf ko bloqué rawatina Sénat bi ndax xam nga fii réew mi ni ñu organisé woo mooy président bi amul droit dépenser moom day laaj rek ñu jox ko donc loolu la ñuy wax appropriation power congrès mo am appropriation power ñoo mëna ñoy voter budget ñoy yokk xaliss ñoy wàññi ñoy dogal bi mu laccé ngir congrès bi défal ko lu ñuy tuddee supplemental bill mën nga ko tuddé loi de finance rectificative congrès bi lank ñu lank ba tëdd ci souf rawatina ñi nga xamné ñoy le Sénat même house bi mais surtout le Sénat ñu né situation bi parce que xaliss bobu dëgg la 14 milliards yi ci Israël la jëm am na lu bëri lu jëm ci Ukraine li ci ëpp de am na loo xam ne ci Taïwan la jëm Ukraine bii di guerre ak Russie Taïwan am na ñu bëri jàpp ne eh, boo deful ndànk laale mën na am seen diggante ak Chine eh, ñu ne ñoom républicain yi du ñu voté bill bi voté wuñ ko ndax dafa soxla 60 voix sur cent ci Sénat bi amul 60 voix yooyu 52 la am xaw ma 53 parce que tout simplement. situation biñ la frontière bi ak ci biir président bi bëgg nañu la situation à la frontière du pays donc bi eh, président bi ci reconnaître nangu na frontière sud du pays la frontière l'Amérique Amérique ak Mexique, euh, li fay jaar ak ci nit ba Joe Biden toog ak léegi ci xayma bi nga xam ne police des frontières mooy CBP Custom Border Patrol def nañ ko nee nañu lu tolloog deux millions de personnes danañu dugg ci réew mi at mi ne mooy ñi nga xam dañuy bëtt ci frontière bi ñëwewuñ visa ñëwewuñ leneen ci ay jamonoom la laata président Biden di toog ñu ngi ko daan xayma ci quatre cent ba cinq cent personnes donc républicains yi ñu ne. nañu soppi nii nga xam ne nii mooy situation bi nga xam ne moo nekk ci frontière bi li tax ñu euh, wax loolu nag mooy nee nañu li ñu seetlu mooy euh, système asylum bi nga xam ne dañ ko tëral mooy képp koo xam ne nii décider nga def demande d'asile yoon lim la may de immigration nationality act mooy nga présenté wu à la frontière li ñu tuddee la police des frontières police des frontières fii mooy CBP custom border patrol gane man ci réew nangam la jógee damay def demande d'asile bu boba li yoon maye moy ñu duggal la dal di jël say fingerprint dal di la process xol naka lañ lay intégrer ci système bi la plupart intégration ci système bi moy libéré la en attendant ngay ñëw devant un juge de l'immigration pour dëggal li nga xamné ni moy demande d'asile boobu euh li républicains yi japp moy non seulement border bi nee nañu système bo xamné la li ñu tuddé broken border Biden ci bopom nanguna lolu expression bobu lay utiliser mais surtout japp nañ ne système asile bi euh, li ko taxono jog jóg nee échoué na ci côté bobu noonu ndax japp nañ la plupart ñi ñew lu ci ëpp ci ñom duñu ay demandeur d'asile mais ñu ngi leen tuddé ay ay ay ay immigré économique donc li ñu digleeg Biden c'est très simple moy nañu changer situation bi à la frontière nee nañu nañu bu crossing nañu illegal crossing daily par jour nañu chat border bi bu de ñeneen yi repousser ñu Mexico lolu la première proposition bi nga xamné ñu koy def li nañu yaatal mass

bëtt di jaar ci frontière bi li ñuy proposé aussi mooy donc non seulement autorisation bi ak pouvoir boo xam ne CBP am possibilité di repousser ñiy dugg si bu ñu yeggee 3000 euh, démocrates yi ñu ngi négocier nañ ko yóbbu 5000 illegal crossing a day mooy 5000 yoo xam ne dugg nañu toujours est-il que euh, euh, bill bii ñëw li muy permettre mooy custom border patrol police des frontières bi am possibilité boobu noonu chaque border bi repousser ñenn ñi jëm Mexico mais aussi def aussi li ñuy tuddee expedite removal mooy dootuñu nekk ci possibilité boo xam ne ni nit ki dugg ñu def fingerprint def li yóbbu ci juge am nañu possibilité génne leen automatiquement à partir de la frontière ndax ba fii ñuy wax ni tey boo jëlee dëkk bu mel ni Laredo Texas am na vingt mille personnes yoo xam ne ñu ngi xaar de l'autre côté de la frontière donc am na ci euh, port of entry mooy yenn euh, poste frontalière mun nga ko tuddee noonu ñu koy wax port d'infanterie yoo xam ne police ba police des frontières bi débordé na débordé boo xam ne dañu obligé daal di tëj poste frontière yooyu ndax amuñu enough personnel suffisamment de personnel de police des frontières pour process affaire boobu noonu donc euh, lii tax débat bi changé ci biir réew mi débat immigration bu daan am républicain contre démocrate lay nekk cette fois-ci même les démocrates souligné nañ loolu même ay démocrate rawatina ay maireu démocrate wala ay gouverneuru démocrate japp nañ ne kon situation bi tollu na fo xam ni li mu attanatul pression bi nga xam mo dal ci am lolo waral d'ailleurs bo jëlee dëkk bu melni New York City maire bi dem na fi Washington DC dajeeg la Maison Blanche don laaj ndimbal lu jëm ci wàllu city bi ndax New York ñi fi dugg si dana ñu tollok 140000 six 000 quarante li ci ëpp ci ñoom ay la lañu cité bi doon laaj ndimbal cité bi dem na ba système d'hébergement yi mu amoon shelter système yi teniratul parce que débordé na xaalis amatul loolu waral d'ailleurs budget bi nga xam ne nii je crois que wax naa ko fii ci programme bi ñu ngi ko nar a voté budget boobu dana ci am lu ñu wàññi luy tolloog 5 pour cent de réduction budgétaire ci agence municipale bu nekk ba ci police bi ba ci sapeur pompier te yooyu bokk na ci secteurs yi nga xamné ni nii naka jekk ci biir réew mi ci biir dëkk bi ñu nekk New York City ay secteur stratégique la duñu ko laal parce que duñu duñu lépp lu jëm ci sécurité ak euh, sécurité policière ak même de manière générale laal ci police ak pompier euh, lu luñu luñu lu ñu mo laali budget la waaye police bi ren du recruter pompier bi aussi dana am réduction donc pour woné situation humanitaire là mais jur aussi situation crise économique et crise politique Nous avons beaucoup de partis démocrates, parti démocrate ñu jàpp nous avons yi euh, mu ngi commencé ëpp loxo mais nous ci ñi bokk ci parti démocrate ba léegi am na ñu ñuy tuddee par exemple Hispanic Congressional Caucus moi groupe parlementaire bi nga xam ay hispanique lañu ñoom nous nañ ne lii discours yi ay discours tappale la ndax kenn woowu leen ci waxtaan woowu ñi nga xam ne ni ñu ngi koy amal diggante le parti républicain ak la Maison Blanche jëm ci naka la euh, White House Biden ak administration di nangoo lenn lii am lu ñu bàyyi am lu ñële def ba indi changement ci immigration pour mën a libérer xaalis bi nga xam ne moom lay laaj euh, congressional Hispanic congressional caucus boobu ñoom jàpp nañ ne kenn woowu leen ci loolu mais rafetlu wuñ joxoñ baram bi nga xamné ni ñu ngi koy joxoñ baram ñi nga xamné ñoy les immigrés donc euh, euh, parce que bu wax immigré évidemment ñu bari dama koy wax toujours moy africains yi taxu ñi wax amna ci ga mais li ci ëpp ay hispanique lañ moy ñi nga xamné ni nii ñoo jógee ci yenen états yi euh, yi nga xamné moy les états d'Amérique du Sud ak de l'Amérique centrale donc Biden mu ngi waaj a fekki wala fekki na les républicain que am na moom ci boppam Biden wax naa ko léegi utiliser na expression boobu li muy tuddee broken border mooy frontière bi soppeeku na soppeeku boo xam ne ni jàpp ne na changement war naa mën a am mooy bu ñu yoggee ci benn nombre ñu tëj frontière bi dootuñ ko ubbi ñëpp di ñëw ñii eh, eh, ñu def lu ñuy tuddee expedite removal expulsion yi ñu gën ko gaawal. Ni def seeni kees ñu dinaay ko ñu accélérer li ñuy tuddee masse déportation Li, moom euh, loo xam ne la am nga possibilité gis ko ci année 2024 bi parce que euh, sondage yi nga xam ne génn na ci réew mi te ñu laaj américain yi lan moo leen gën a soxal immigration moo ñëw en deuxième position donc il faut mu am signal bu fort moom Biden bu mu annoncer ba mu envoyé opinion publique bi surtout ñuy voté électeurs yi won leen ne lii ngeen di jamba ci frontière bi gis naa ko danaa ci def solution d'autant plus que ci même semaine bi may wax li nga xam ci la am ci même semaine bobu ci lañu gis taxawaayu Donald Trump ci meeting bu mu doon def ci Iowa mu ne ñii di dugg ci ci réew mi ay millions gi ñew dugg ci ci réew mi jógewuñ rek ci pays Amérique centrale yi Amérique latine yi mais ñu nga jógee Africa ñu nga jógee Chine c'est vrai que y a beaucoup yuy jógee ci des pays asiatiques mu ne ñii dañu ñëw ngir posone réew mi posone deretu réew mi te loolu bi mu ko waxee wax dëgg yàlla ñu bëri ñaawlu nañ ko ci biir réew presse bi ba ci président Biden ndax expression bu Adolf Hitler don utiliser nazi yi don doon utiliser loolu xam nga nazi yi ñoom ci jamono Hitler dañu gëmon né ñom ñoo gën ci doomu adama liñ ñu doon la race aryenne looloo waral ñu euh, def ñaawteef yi nga xam ne def nañ ko rawatina jëmale ko ci juif yi mais Donald Trump gëm na ne ñii di ñëw dañuy ñëw pour mixer deretu réew mi te annoncé woon na benn plan ci weer yële ñu génn ci gannaaw bu jëlee réew mi li mu fas yéene def je crois que limoon naa ko fi tëj frontière bi def deportation massive et mayer même jël yenn ressources yi ñu defoon ci département de la défense ci ministère de la défense bi indi ko ci walu immigration donc euh, immigration bi mën naa am soppeeku ci at mii ñu jëm ci yi nga xamné ni limna ko ndax nekatul rek euh, parti républicain bi mais ci bir démocratie amna ñu gis ni système bi démé ñu né ah il faut que mu am soppiku bu dul loolu jàpp nañ né électeur yi mën nañoo leen a sanctionné daal di dal seen kaw. et immigration lolu taxone ci début émission bi ci début bi ñi lancer programme bi mané phénomène global la ci même semaine bi ngay gis lii annonce yii ñu def Amérique ci même semaine boobu ci la France dugal benn législation jàllul mu changé ko gën koo gën koo métital pour euh, sonal ñi nga xam ne mooy immigré yi nekk France boo jëlee France tey euh, immigré ya fa nekk loi bu bees bi jàll barki démb immigré yi danañu am jafe-jafe collecté lépp lu jëm ci social sécurité ak li nga xam ne nii moy bénéfice yo xamné ne ñoo liggéey cotiser ko te euh, mu war lo leen ko parce que du luñ ñu leen may mais sen cotisation les étudiants étrangers li ñuy tuddee foreign student sen nek France dana gën a jafe loolu ay euh, loi bu bes bi duggal nako dotul gëna yomb ci ñom euh, immigration bi en France loi bu bes bi indi na lu ñuy tuddee quota am nombre bo xamné buñ fa yeggee dotu ñu mayee visa kenn dootul dugg ci réew mi mais surtout li ci gëna graw moy li nga xam mom lañuy wax droit de sol Amérique waxna naa fi rek ne Donald Trump nee na bu jëlee réew mi li muy soppi bokku na ci li ñi tuddee de 14 amendment moy de 14 le 14e amendement nga xam moy consacrer le droit de sol képp ku juddoo ci réew mi sa papa ak sa yaay nek américain ñu bañ ko nek américain nga d'office en France loi bu bees bi duggal na disposition bo xam gëna jafel naturalisation xale yi fay juddoo déjà que ñom amuñu won sax droit de sol dañu combiner droit de sol ak droit de sang il faut nga juddoo fa ay parents français wala juddoo ci réew mi ba ben âge mais dana gën a jafe ci ki nga xamné ni France juddu na fa ay parents français euh, français euh, am am am naturalisation am nationalité française dootul yomb ci euh, leneen li nga xamné ni en France loi bi dugal nako moy ñi nga xamné ni ay français lañ de nationalité buñu ñu yenn crime yi loi bi bees bi dana permettre ñu nangu nationalité bi nga xamné ni mom lañ def surtout bu féké né crime yooyu né nañ dafa jëm ci police donc euh nga gis né phénomène global la bo xamné ni nii réew mu nekk problème ya dal ci mom mu ngi japp né dara tegu ko luddul immigré fi ñi wax ni Afghanistan Afghanistan afghan yi nga xamné ñu nga Pakistan tolok ay dizaines de milliers ñu nga leen di déporter di leen génne réew mi Afghanistan donc afghan afghan yi dëkk yi dem Pakistan dawoon les talibans ils sont en train d'être déportés massivement donc euh, muy phénomène global boo xam ne nii euh, réew yi ku ci nekk yaa ngi jàpp ne difficulté économique yi nga am problème yii dal sa kaw dara tegu la ko lu dul immigré et pourtant France bii may wax tey la population vieillit comme Italie ñu ngi maguette, ba ci Allemagne donc mënuñu seeni économie mënul continuer di am croissance bi soxla réew yi di avancer ludul immigration bi dañ ko soxla ñom soxla nañu une main d'œuvre bo xam ni jeune waaw motax tax ñu ne li loi bi 10 10 ñu ne yenn secteur yi nga xam dafa am lu ñuy tuddee labor shortage dañu am manquement de travailleurs nee nañu secteurs yooyu danañu continuer di recruter Amérique bi doonutoon ton nek limu doon comme première puissance économique L'udul immigré yi ndax ay immigré ko sant mais gouvernement bu ci nek yaa ngi problème interne yi nga am surtout problème économique fi am na problème économique yu tar fu ne jëm ci walu inflation bi euh, Europe naka noonu donc ñi nga japp ne problème yi am ci biir réew yoyu dara waralu ko lu euh, immigré yi nga xam ne ñoo dugg ci ci biir réew ya donc euh,

amna luñu def ci wàllu immigration donc na muy nekkee moy dugg bi dana gëna jafé ñi dugg aussi génn bi dana gëna a yomb lu ñuy expedite removal déportation yi dana gëna bëri leneen li moy bàyyi xel ci bu baax baax Donald Trump Donald Trump mën naa nekk président mën naa quatre président fii may wax ak yow tey moo jiitu ci sondage yi ci parti républicain bi donc very likely il a beaucoup de chance pour nek li nga xamné candidat bi nga xamné moy mooy ci parti républicain xamnañ ni mu taxawé ci immigration xamnañ lim fi jot def Donald Trump nek na fi ñeenti at waaw lim fi jot def gis nañ ko bu baaxa baax ci wàllu immigration donc ñëwaatam fii nii day nek catastrophe ci communauté immigré yi ndax dana tëj frontière bi dana déporter massivement ñu bëri ñoo xamné ne nek ci biir réew mi am fi papier régularisé wu dana gëna jafé donc je crois que ñaari facteur yoyu lu mot a xel la ci année électorale lañ jëm Joe Biden dana soppi doxalin pour jéem inverser tendance yi nga xamné ni wax ko ci sondage yi Donald Trump nekkoon na fi xam nañ ni mu taxawé moom parti républicain bi déjà que législation bi ma wax ni euh, mënatul jàll lu après euh 2023 bi ni donc suñu dellu c'est juste janvier que la négociation yi di continuer entre la Maison Blanche White House et le parti républicain qui est xam ñoo ci Sénat bi ci Sénat bi donc ci congrès bi de manière générale mais surtout dans le Sénat Biden soxla na 109 milliards de dollars congrès euh, euh, Sénat bi nee sopil dohaline politique ci frontière bi waaw frontière bi yokal déportation yi defal lu ñuy tuddee removal loolu boko defé bu boba man nañu waxtaan ak yow xol naka la voter budget bi nga xamné soxla nga ko genre loi de finance rectificative la ñu koy wax supplemental bill mu tollu ci hundred nine billion dollars moy 109 milliards de dollars donc yi je crois que c'est des facteurs yo xamné ni yu mata a xel la danañ continuer diko surveiller de très près ay mbir yo xamné ni nii képp ku ne ci réew mi damay faral di wax né politique États-Unis képp ku fi nek xamal né intéressé la parce que tout simplement ni muy ñuy intéressé d'ailleurs noonu la wara a intéresser le reste du monde parce que lepp lo gis mu am ci adina bi amna euh, luy am euh, li politiquement li xew fi amna conséquence ci adina bi guerru Israël bi ngay gis ni tay li ci ëpp ci xaalis bi ak ci ngànnaay yi nena fi la donc ki falu day am toujours impact ci géopolitique ci adina bi ak ci économie mais immigration naka jekk naka jekk hot topic la Donc, mos a indi division mais li qui change, c'est que da démocrates contre démocrate contre républicain cette fois ci ay démocrate yu commencé à sen baat ne lii di xew ci bodo bi is not sustainable ne nañu lolu mënul wéy il faut un changement en interne et certainement Biden ci bopom lolu le véhicule nanguna né ne the border is broken donc nous nañu continuer diko suivre de très près peut euh, ci xel peut-être euh, ci ay di euh, bu ñu ci 2023 bi jublu ci 2024 bi négociation administration Joe Biden ak parti républicain bi ci congrès bi naka lay tëddee yan changement moo changement am ci immigration bi changement ci frontière surtout que changement mais changement lay donc di suivre de près donc lii moo Euh, li nga xam ne ni moom lañ leen indiloon jëm ci programme bi ci jotaayu immigré fii ci Al Maktoum TV New York euh, ñu ngi leen di ñaan ngeen di wéy di partager vidéo yi et surtout di souscrire ci chaîne bi ndax loolu aussi mooy may doole programme bi bu ko defee mbokk yëpp man ci jot donc ngeen suscrir ci Al Maktoum TV New York waaye gën nag di partager li nga xam ne nii mooy vidéo bi incha allah danañu dellu ci waat ay bés bii di ñëw bu ñu ñëwee. Eh, gën yaatal li nga xamné ni moy politique du réew mi ak bi Sénégal ñi ngi ci waajal benn émission ñi ngi jëm ci élection présidentielle amna fi ay décision yu jaar ci ay bés bi joggé ci tribunal grande instance bu euh, Dakar jëm ci radiation ou liste électorale yi nga xamné mo dal ci Ousmane Sonko danañu jàngat arrêt boobu noonu naka la demee ak pourvoi en cassation bi nga xam ne nii am na jëm ci euh, jëm ci décision boobu devant la Cour suprême loolu danañ ko xool. Euh, bañ bi nga xamné ni administration électorale bañ nañu appliquer décision euh lolu ñu jàngat ko ci walu droit positif réew mi euh, gën ko gën ko yaatal bu ko defee ba mbokk yépp man ko man ko comprendre donc li mo doon euh, tey li nga xamné mom lañ leen di doon di rafetlu seen teewaay di ñaan ngeen partager vidéo bi souscrire ci chaîne bi Al TV fi ci plateau bi sen mbokk El Hadji Malick Tall ci machine bi suñu xarit Cheikh Ahmed Tidiane Dieng ñu ngi leen jox daje ba beneen yoon.